ak Clédor 10 000 problème ak Clédor 10 000 toj na nen saan toj na nen 10 toj na nen 10 000 problème moo ñu wan ginnaaw Clédor moom lañ jàkkaar lool waaye Clédor day sant ay Clédor la ma xam si Clédor oh albi sibla na saan ku ne kàppal ko sa morom kàppal ko antal julli te dañoo xas xas la woon ñaar da xeex dóoral ma dóor dóoral ji ah ko mu bañ takk ko taxawal na ko jibi ko waxoon ko na ko maa lay jàngal fii ma dalal la waxoon naa la ko expérience face la jeunesse waxoon na ko fii maa ko moom maa lay dalal waxoon na ko ndeysaan waxoon na ko waxoon na ko maa lay dalal déedéet 10 000 dama xamul Clédor dama xamul 10 000. bon mbëru ba pare la day dem ci àll bi. mbëru arène la mbëru ba pare la mbëru arène la.